am nag mbégte boo xamante ni am na commencement mais amul fin di wax aussi alhamdulilahi rabil alamin ndax sama diggante ak Bakane histoire la démb la dama jógee lem soo jamono 98 ci même année bi ñu xamante effectivement wax xam xamal na leen ni que sama soxla la njëkk a xam que man effectivement euh, moom nag yàlla moo ñu boole donc ni ñu yàlla boolee Euh, baatin la yàlla dogal aussi sama carrière lu may def rek day jaar ci moom donc loolu yàlla moo koy def euh, may nuyu taawu kër ndayam muy grand vieux Seck maa ngi koy ziar bu baax suñu xalifa la di nuyu aussi famille kër jabaram mais maa ngi koy njëkkee ci grand Mor Kuma Mbeng ak famem di nuyu aussi grand El Hadj Ndiaye sunu mag di nuyu aussi suma grand frère Boubacar xamante ni tey moo fi représenté famille suma mag Youssou di nuyu tout la presse sénégalaise et sama diggante ak Bakar nag histoire la comme ni ma ko waxee sànq yàlla mooy dogal lépp lu may entamé ci sama carrière ci Bakar lay njëkkee mais loolu yéene moo koy def parce que dan naan yéene moo ëpp doole jëf Bakar ñu ngi njëkk a daje 98 euh, ma xam ko découvrir ko mu doon def album di ko réaliser bëggoon ñu def benn featuring ci biir loolu ma fréquenté ko mu yàgg a nekk nag nit ku baax yàgg a nekk un serviteur yàgg a nekk koo xam ne aussi lu mu mës a am rek partagé na ko jox na ko ay ay nitam moom toog ci loolu la ñu àndee mais nag jabaram yàqu ci dara man dama doon ñëw awma dépense jabaram jox ma dépense munas et boobu xamante gu ma sax ak bébé mi. dama doon ñëw kër ñoom bàkkan fekk fa grand Mor Kumba. mu may ñaanal dama doon ñëw kër Bakkan fekk fa grand El Hadj Ndiaye mu may ñaanal ak famille bi yëpp ñoom grand Moustapha Diouf. donc ba yàlla dogal aussi ci biir loolu may gérer suma carrière bi nga xamante ni maa ngi bokk ak moom album bi war ci woy fàtte na album bi ñu war a def mais mi ngi xool man nan laa mën a amee producteur et boobu ma it maa ngi wut ay producteur mais moom it mu ngi wut ba yàlla dogal jimmi andi studio bu bees tax comme nii mu ñëw jël ma yóbbu ma kër jimmi ñu teg suñu projet euh, album donc je pense que yooyu yëpp su ma ko naree wax sax damay monopoliser euh, euh, tey bés bi parce que xam naa ne <laughs> sonn ngeen donc comme ni ma ko waxee sama mille émissions yi ma def donc moom effectivement sama seex la hormis liggéey bi dañu am complicité boo xam ne complicité xarit la comprend nga jamono di dox di dox mu nekk ci Baba Maal jóge fa ba nekk Jolof ci Alioune Mbaye Nder nekk ci euh, Viviane ba yàlla dogal tey ñuy àndandoo nag mu ñëw génération consciente ñuy liggéey di liggéey nag liggéey bu set liggéey bu dëggu liggéey boo xamante dañ ko teg ci dignité teg ko ci loyauté teg ko ci fidélité kenn du nax sa moroom kenn du jay sa morom ku ci nekk loo sentir rek loolu ngay développé mais nag muy koo xam ne leader la ndax leader mooy fu dara nekkul nga jëm fa def dara tey buñ ne famille jërë-jërë comme bërki démb maa ngi gis ci internet bi grand Aziz Seck mu joxe message bu am solo que ni baakan dafa nangu ba pare nag yaa ngi représenté dëkkam yaa ngi représenté aussi famem kon baakan studio bi nga def nii defaloo ko Sénégal de defaloo ko Afrique mais àdduna nga ko defal parce que li fi nekk ci logistique dama gëm ne tey tubaab dina jóge Europe ñëw Sénégal pour enregistrer dama gëm ne tey tubaab dina jóge Amérique ñëw Sénégal pour enregistrer ndax mbir mi nekkatul fenn mbir mi xam nga fu mu nekk ngëm-ngëm liggéey ak sellal ak dëggu rek foofu la mbir mi nekk kon yal na la yàlla fulal studio bi ba ay studio studio di ci topp yal na la yàlla fulal tele bi ba ay tele télé tele di ci topp baax nga gore nga am nga jom fonk nga say waaju te nangoo ngaa liggéey ndax lii tey ñun ñi nga xam ne aussi nekk nañu ak yow di liggéey ak yow di ànd ak yow partout dans le monde ñun mën nañ ko seere groupe bi léeg-léeg day am lu lëj nga jóg sol sa dàll lijjanti ko Massamba du yëg ma demb du yëg yaa ngi wax sànq lu am solo que nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci dëggu dangay ànd ak moom ci fidélité ak loyauté mais comme li ma wax rek euh, man def naa vingt cinq kenn mënatuma ci nax métier mi mi ngi si sama biir ba tey nag damay jàng élève la du ma mës a nekk maître ndax yàlla moo ne wàcce leen seen bopp ma yëkkati leen mais defe naa ni son kenn mënatuma si nax ndax xaw naa tukki tuuti aussi et je pense que ni tey li ñuy wuti si le plan international am na fi léeg-léeg mën nga dem Europe sax bitim réew di enregistrer te li nekk fi nekkul foofu donc tur bi rek moo fi nekk donc maa ngi lancer un appel solennel sama mbokku artistes yi ku ci bëgg am son boo xam ne vraiment ku ko dégg ni waaw na nga ñëw affaire baa ngi fii te pour ñëpp la loolu moo waral nag ma ne ko jëre bàyyil man ma léemu ko ndax yow yàllaa ñu boole. bàyyil ma dugg fii ci barki sëñ Fallou def ñaan woy suñ borom nag ñu tàllal ko suñu ay loxo xéwal yi saawaan baawaan bañ naan nag ah tey fi mu ne nii calendrier bi fii ak 6 mois bukki na te loolu la ñuy ñaan yàlla incha allah jërëjëf.